ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant chaque x di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core x ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di ip boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorer votre quotidien. sëriñ Abdul Fatah Mbacke moom Cheikh Mohamed Fadal moo amal ak ngan ci sëriñ basir Mbacke Abdul Xaadir ci samedi ji dëppook ñaari fan ci janvier atum 2021 ci këram gi nga xam ne moo nekkee ci Gédé. mu nekk ngan gu kawe lool sëriñ Abdul Fatah Mbacke Falilu bi muy ñëw ànd naag mbooleem njaboot gi ak i taalibe ci bés bii nga xam ne moom la doon amal ci sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mu nekk ngan gu mu fonk lool. ngan gi nag sëriñ Abdoul Fatah Mbacké Fallilou bi mu ñëwee fekk na fa ay kilifa yu bari yoo xam ne saa su ne ñooy ànd ak sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ñu teewee ngan gile waaye it am na ci yeneen kilifa yoo xam ne it ñëw nañ ngir teewe si ngan gile bokk na ci sëriñ Abdou Samad Mbacké moom sëriñ Sohibou bu ku ko xam xam digganteem ak sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul ñu nekk ñaar ñu soppante lool saa su ñuy ànd liggéeyub Serigne Touba bi mu ñëwoon teewe si ngan gile ànd kook Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr bokk na ci it yeneen kilifa yoo xam ne ñëw nañu ànd ak Cheikh bas ngan gi moom moo di Serigne Cheikh Abou Mbacké moom Cheikh Mahamadul Mourtada ak Serigne Cheikh Astou Faye ci ngan gi nag Serigne Abdoul Fatah Mbacké Falilou bi mu agsee saafonte na ak Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ñu waxtaan fa waxtaan wu am solo feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne moo dox ci diggante kër Cheikh Mouhamad Fadal Mbacke ak Serigne Abdoul Khadr waaye it gën a yeesalaat seen diggante ñoom ñaar ñi mu nekk diggante bu rafet lool te yàgg lool. ngan gi nag mu nekk ngan gu am solo goo xam ne nganuk murit la amal fa jotaayu murit bu am solo boo xam ne am nay kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko fa ñu ànd teewlu ko. di siyaare kilifa yoonu murit Cheikh Mouhamadoul ñaanal ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér di ñaanal di la jox nuyoo Cheikh Abul Baraka ak ak kii ak jawrinam ji Cheikh Modou Basir ak njabootu waa kër Cheikh Modou Fadel gi di la sant bu baax di la gërëm cant goo xamante ne bii suñu borom la ko seeral am na loo xamante ne bii ñaar xamuñu ko ñett xamuñu ko waaye ñaar xam nañ ko bari na loo xamante ne bii yaa moom rek yàlla moo ñetteel bi nga xam ne moo ko seere dugalu ci kenn ndax. ñi la mag bari nañ moom mi ñu ko mag bari nañ waaye suñ borom mii boole moo leen moo moo leen boole nga jàpp ko jàpp goo xam ne jàppoo ko kenn nga wax ma man mii nga xam ne maa gën a doy di ci ay dongam ni ma fi ma ko teg teguma fa kenn moom it ma ma dégg muy seere ba ci yow seere yoo xam te ni sama rakk sama xarit la foo xam te ni fu fu ñu la tuddee rek loolu la ciy teg te loolu seereel la ko ku ne léegi nii bi muy waaj a wàcc rek la ma woo ne ma santal ma bu baax sëñ sëñ Bas santal ma ko cant yu rëy yu kawe ci ci ci yoo xam ne sama làmmiñ laa ko jële waaye mi ngi jóge ci ci man ak samay kilifa ak njabootu sama njabootu bopp gi ma àndal ak bokk yi ñëpp di la ñaanal nga eggale eggale googee nga xam ne baayam bu baax ba ñaanaloon ko Cheikh Abdoul Ahad mi ngi lay ñaanal ci ñaanam googee ci barke Cheikh Modou Fadal mi nga xam te li mooy kilifaam nga eggale te bul gis dara loolu ak fakkastal mi ngi lay xamal ne yan bi diis na lool waaye suñ borom mi mi yene yan bu diis mën naa téen téen téen bu xam te ni tolloon ak yan ba yàlla na suñu borom téeñal ci barkeb Cheikh Maodou Fadal mi nga xam ne mooy mooy waajuram nga yàgg fi lool ba li nga yéenee liggéeyal seen jëm yii nga mën koo mottali te bul dajeeg dara loolu naqari li sëñ bi waxoon na gënoon naa rafet lii waaye euh, dafa jóge ci kàddu gu doyee di rek waaye ñun xam ne ñoo ànd moom ñoo ngi ñaanal Cheikh Abdou Fatah mu yàgg fi lool te wér nga xam te ne bi ñoo leen suñu borom booleen ñi ngi leen ndax lii am njàngal njàngale ci ñun moo xam ne bi mu ci tegee suñu tànk euh, wallahi na siñ fañ jëm dana baax yàlla na ngeen fi yàgg lool te yàlla na ngeen wér te saa bu ngeen gëstoo yàlla ngeen yàlla ngeen gis asalaamaaleykum wa rahmatullah gi dama ko jox Serigne Cheikh ngir mu lim ak cant ci sama digg Serigne bi ndax li nga xam ne suñu xel ak suñu xol yéeg na ko ci cant ak ngërëm allah mu ñu lottu ci wax ko kon dañuy siyaare Serigne bu baax a baax di ko sant ci jéego yi nga xam ne def na ko te muy loo xam ne waru ko ci ñun ndax yoon képp kuy sa kilifa rek bu doon benn bis sax mooy sa kilifa rawatina moom suñ diggante ni mu soree kon bu bu amee ak jàpp ci ñun jëmmi Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mamadou Fadi ak Cheikh Abdou Khadre la loolu nag du tey dafa yàgg lool ndax mbool lu rek ci sama digg def na ko jiitu yii jiitu na fii jamono toll te dara mosu ko ñaawal saa su dafa gën a loolu nag loo ko waral jàpp gi ma jàpp de lu dëgg ci biir xolam ba àdduna sépp xam ko muy loo xam ne umpur kenn ndax tudd na sax jël na ay ak njabootam tudd ma ko loolu nag rëy na féetal na ma ay doom doom ju jigéen te loolu yàgg na du tey boo suñu saali fi kon cër bi ma am ci moom du tey te lépp lu ci mas ak si rafetal na ko àdduna si xam nañ ko dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ci barke suñu ak barke waa juróom ba nga xam ne yéene na ko bëgg koo jëfar suñu Tuubaa suñu borom mooy ko kàttan ak wér ndax moom daal li ko war ci ñun moom matal na ko ndax njabootam gépp a ngi ni toog waaye xam nañ ne waxtu ne day wax ne saa suma jullee fajar bu ma ñaalee sama jëm jiitaluma ci kenn si si jëm ñaar la te loolu da koy seere fu ma néew loolu la mu ni su ko weesu bëggutu dégg ci man dara it nag loolu jàmm waaw lu ci man rek buy tontu du ko tey màgg du suñu baxaar itam xam ngeen ne ku mu yabaloon ci yéen du ma ko wutaleeg jëmmam wala kenn ci rakab yi ku mën a doon waaye ni ma koy defee defaru ko kenn ci yoon wi loolu nag yëg naa ko mooy bay bàyyi léppam ñëw yendoo man bis ba mu àgg te bu yónnee woon ndaw mu doy ndax looloo ko ci suñu diggante loolu lépp yëg naa ko màggalu Cheikh Mamadou Fadilou bu àggsee néeg ba man rek la fay loolu lépp nag ab cër la boo xam ne bu xooloon suñuy at ni mu demee du ko def kon nag cant gi moom làmm lot na ci wax ko suñu Cheikh mii nag li tax ma tànn ma tànn ko. mooy eh, diggante Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Faty waaye diggante waajuram ak Cheikh Mamadou Fadil ak seen diggante moom kon yaakaar naa eh, seere si li ci ëpp mooy koo xam ne la muy seere lépp ñëpp dañuy xam li mu wax dëgg la moo tax ma jox kàddu ngir bëgg mu jot li ko